nit duñ ko mafé duñ ko yaasa duñ ko macaroni duñ ko petit pois duñ ko nambé nit njariñ président Wally Ballago sek président jàmm man Omaro Mané depuis 1960 Sénégal am indépendance wal jojo ndjay taxaw def discours wu rëy wam def degol na tay munatu la xaar le 4 avril 1960 fuma jaar dok bu mu jàmm dal di joxe ne kaddu gi birna Sénégal am ngeen sen indépendance bis ni tay man numéro Maalal depuis le 4 avril 1960 Sénégal am indépendance ak tey waykat buy yeewoo ci réew mi buy te micro ñi maam di dund ak ñi dem yàlla seen suuf sedd ci seen kaw ñi la mat dund ak ñi dem yàlla na suuf sedd mat di jaay ak ma ba ci ñi nga maasel ba ci ñii say rakk waykat mas ta amee njariñ li nga ko amee maa la ko wax barke Cheikh salou Faye khate dama ne kat masta amé ndariñ ci Sénégal ni wali Waly Ballago Seck amee président jàmm rew wa li nak sama engagement personnel la man mako wax te buma ma nak ma ngi ne aéroport di dem London Angleterre la jëm moma fa yobbu visa 2 ans la ma ñu dem liggéey del siwaat ci rew mi jamm ak salam barki dem mo ndjay matul 40 jours la jógee Italie bala Italie dom de Paris la togay amul ndax mom bay am ak mom da ngay nek en activité da ngay liggéey da ngay liggéey yi tekma tak do ko tal ay pexé ki ay ki complo ak ak di wër di fenn di noppalu barek éjeke di lek di fenn di noppalu boy and ak président Wally Ballago sek do ko tal ndax da ngay tal li nga xam ne muy liggéey ak réalisation ma ngi ne Angleterre la suma day daw ndax Angleterre def ci bari ay dëkk canal plus horizon moo ñu boole woon canal plus horizon moo ma boole ak Everton Arsenal ngi xarit oh David Beckham Liverpool Manchester City Manchester United dëkk nga tukki ci canal ci canal horizon la ñuy canal plus Tottenham Tottenham yooyu dëkk nga xam ne tey le président Waly Balago Seck dog buum sama diggante ak ñoom kanaal tàggoon naa ak ñoom tey bis ni tey yooyu dëkk ndax maa fay demal sama bopp maa fay rombal sama bopp maa fay liggéeyal sama bopp daal fa sama doole jël fa sama wërsëg dellu soit te yàllaa ngi ci bëgg jëmmam jiyee ko président Waly Balago Seck président jàmm réew mi mi ngi ci social mi ngi ci mbaax mi ngi ci sutura mi ngi ci hôpitaux yi mi ngi ci prison yi mi ngi ci ay mbokkam mi ngi ci ay mbokki jàmm dama ne mille neuf président Wally Ballago Seck président jàmm ci social mi ngi ci mbaax mi ngi ci sutura ngi ci hôpitaux yi mi ngi ci prison yi mi ngi ci ay mbokkam mi ngi ci ay mbokki jàmm dama cent soixante bi ñu amee indépendance ak tey waykat bu ma sa yor micro ci réew mi président Wally ko sekk lépp njariñ du ma yem ci wax ko ba ko fi dem maa ngi dem Angleterre liggéeyi maa ngi dellu siwaat du ma yàgg fekk fan yi néew ma ñëwaat bu ma ñëwee je convoque toute la presse sénégalaise nañu ma xaar fii ci buntu aéroport bi ma wax leen nan la Wally Seck ëppee njariñ ku ma sa way ci Sénégal